asalaamaaleykum mbokki làmb asalaamaaleykum mbokki internet wasaare làmb mbokki Dakar midi ñu amati mbégte ak kontaante ah tey ñu ngi toog ki nga xam ne mooy ménagère ne sekk moom ay waxtaan ci li nga xamante ne mooy koy jël tout le temps ci li nga xamante ne mooy ci côté làmb ñu ngi leen nuyu maa ngi leen di fay lu bare bare di nuyu waa wasaare làmb yëpp jaare ci di nuyu ahlu làmb yëpp muy CNG muy bureau ménagère ñu ngi du du luñ ci parce que ci at bees tey at mi tey lan ngay wax li nga xamante ni tey mooy mbër yi lan ngay wax tamit li nga xam mooy tey ménagères di yàlla yàlla muy nekk at mu naataange. waaw euh, xanaa di leen gën a ñaax rek parce que àdduna moom loo ci nekk da ngay defar di defaraat rek rawatina nag làmb de cee raw. lu ñuy lu ñuy defar di defaraat bis bu ne da nga jubbanti côté bee bis bu ëllëgee nga jubbanti côté parce que lu lu lu àdduna bokk la lu àdduna bokk il faut ñuy jubbanti di jubbantiwaat. di ñaanal sénégalais yëpp ñu am jàmm ñu am at mu bees moo xam ne si moo dàq ci at yi ñëpp feetu feetu ko naga ni déwén kenn bañ a manqué ba bu dee manqué xaj na du du du du bari di ñaanal sénégalais yëpp rawatina nag ahlu làmb ñi nga xam ne ñoom laa bokk làmb ji maa ngi ñaanal ñëpp di ñaanal yéen waa Sidi yëpp yéen ñëpp maa ngi leen di ñaanal di ñaanal Sénégal yëpp ak képp ku yëngatu ci làmb jërëjëf li nga xamante ne tey uh, at mu bees dugg si na yan règlement la nga xamante ne la CNG indiwaat yu bees yoo xamante ne comme yu bees yoo xamante ne yow xamaguñ ko ci côté làmb ci côté yéen yi nga xamante ne mooy yéen ménagères yi ak ci côté yi nga xam mooy mbër yi ay réglement yu bees uh, amu fi règlement yi fi doon am yi fi am nii daanaka yëpp yi mu amoon na fi benn rek laa fi gis bu sensé muy mbër mi balaa ñëw danañu uh, tiire xam fa muy toogi loolu rek moo fi règlement bu sensé te loolu secret la mm-hmm. suñu diggante la ak CNG danañ ko waxtaane boo ñu mel ne yéen duñ ci joti keneen du ci joti ba mbër mi toog ba pare lu ñu door a xam ni ke mbër mee fool toog boobu règlement laa fi gis bu sensé même gisuma fi ay règlement yu bees yu yi ñu mën a wax yoo xam ne si de jaar na wax gisuma ko mais dañuy gis que ci mel ne combat bi pacifique ci combat bi xoo xoolee que mbër mu ne dañ la may quinze personnes mais gis nañ que Balla dem na ba ci mukaayam maanaam bari na bari goo xamante ne lu mu ay plus de trente personnes parce que dugal na ko ci biir làmb ji loolu CNG ban la ci war a jël ak ménagère bi ndax is ce que waxtaan ki nga xamante ne tey mooy mbër mi wax ko règlement yi nga xamante ne tey mooy CNG yu muy tey ak yi nga ne làmb nangu na ko mbër mi moo gën a xam ménagère bi règlement bi na nag nit ki dana dem ba du moom boppam Euh, lii ñëw doo ko xam mais lii règlement bi nun bu gëmmee xam nañ ko mbër mi bu gëmmee xam na ko cest à day toll jamono boo xam ne nag euh, doo doo mën a régle doo mën a régle seen situation da bàyyi da ngay gëmm jàll rek nga xam ni CNG teg na la lii lum la teg nga xam ni loola ngay tegoo doo ko mën a bañ waaye nag it gënaluñu bu sañoon lépp day jaar ci ci règlement bi ñu def ko kenn mbër mi ñu bañ a yóbbu xaalisam dara bañ ci am. xam ne mooy euh, ñaar mbër yi seen jamono yi ba ci yëpp nag ku ci mel ne bu Papa Sow Siteu combat bi am fi bi bi passé ku ci mel ne Tapha Tine Boy na liggéey bi nga xamante ne tey ménage war am na loo xamante ne tamit CNG si liggéey ak mbëri ci loolu. yàgg na ci làmb xaj na yéen yàggu leen ci làmb mais ñun ñi fi nekk 68 ci làmb ba léegi loolu yàgg na ci làmb comme li ma la wax rek comme ni ngi dañoo tollu ci defar nañu koy eh, jël étape par étape di koy bu ñu di duggee ci lii bu subaa ñu dugg ci bu gannaaw subaa ñu dugg ci lee lépp loo xam si lu ñu war a dindi la yaakaar naa CNG bu bees bi fi ne dana ci taxaw pour ñu dindi ko ànd ci ag menacé yi ànd ci ak mbër yi ak ñi nga xam ne ñoo encadré mbër yi Bombardier déposé dafa waxoon ne dina déposé recours ci combat mook Balla parce que site bi nga xamante ne am jël déposé recours am fan ngeen toll ci recours Bombardier bi nga xam mooy recours boobu. recours kay ki ko def la nga moom war a laaj fu mu toll waaye man mi ñuy recours kay mënumaa xam fu mu toll wala fu mu toll. loolu moom aw ma ci xam-xam te duma ko laaj sax nag. Hmm. ñu gisee combat boobu diggante Balla Gaye yàlla def na Bombardier am na ndam yàlla na ko yàlla ji eh, ndam li jik eh, bëri daan ak daanu ñoo ànd Balla Gaye na ñëw na yàlla def na li mu war a def li mu def li ci des nag ëllëg eh, nun nooy xool lu la daaneel tey bu subaa da ko moytu. waaw li ñu jàpp ne moo daan Balla Gaye li ñu wax ci site. loolu lu ñuy wax ci ci ci ci ay kii loolu ñun suñu secret la boo ñu ci waxtaanee ba pare bu boobaa danañu mën a ñëw ni li danañ mën a ñëw ni leen lii moo daan Balla Gaye waaye toog ci sit bi nii lii moo daan Balla Gaye te waxtaanuñu ci ba pare ndax man na maa gisee neneen Balla Gaye gisee neneen keneen gisee neneen keneen gisee neneen gis-gis yooyu la ñuy dajale xool bi ci war a am ñoo ñu lii la nañu def lii bu boobaa nag boobaa danañ ko mën a wax ci site yi mais toog nii naan lii moo daan Balla Gaye loolu noonu eh, ñeme ñemewuma ko de non non non non. mais bu nga gisee Balla Gaye lan nga xalaat la war a yokk ci li nga xamante ci mooy ci côté côté mystique la wala ci côté entraînement wala ci côté xeex la parce que bom est-ce que Balla Gaye tamit li mu bëreeg Bombardier ndax loolu la loolu la war a bëreeg ki nga xamante mooy Bombardier. waaw Balla Gaye ni mu daan bëree la bëree moom loolu la xam mën na su koo dindi nit du def li muy def loo xam war a mat fukki at ak nangam di ko ci def ah, dindi ko dana jafe lool. mënees naa dem nag tey xool nu ñuy def ëllëg. lii la ñuy dindi lii wàññi lii wàññi lii bu ëllëgee ñu xool mu xool ci parce que euh, Balla du mbër mu ndaw mbër la moo xam ni bis bu tàkkusaan bu ne am na ko kon loolu lu ñuy waxtaane la lu ñu war a li ñu war a dindi wala lee la ñu war a defar wala lee la ñu war a defar danañ ci toog waxtaan nun ñi nga xam ni ñoo ànd ak moom. am na ay contrat yu nekk seen kanam ku ci mel ne Boy Niang ku ci mel ne euh, ku ci mel ne ki nga xamante ne mooy Eumeu Sène seen diggante ak Boy Niang wax ci bari woon na jamono ji passé bi Boy Niang jógee ci défaite ci contre moom Tapha Tine parce que boo xoolee si du bëre moom léegi parce que dina amaat yeneen ndam ñu soog koo jëlaat yow en tant que ménager tey lan wax ci loolu ci kàddu yi nga xam ne na ko wala euh, euh, Balla Gaye ndax dina bëre ak Boy Niang ndax contrat ba léegi mu ngi fi waaw xam nga dégg comme li a la wax rek wax comme waxtaan guñu toog gu ñu waxtaan Aziz li mu wax am na ci droit parce que lu ci bari fekke na ko lépp moom la moo yore lépp comme moo yore lépp bu waxee loolu am na fum mu ko teg bu ñu toogee dana ñun wax ni fii ngeen di jaar fii ngeen di jaar fii ngeen di jaar mais comme toog gu ñu waxtaan la Aziz wax mënu ma cee commentaire dara la Balla wax mënuma ma cee commentaire dara parce que dañu dañu toog rek ci feneen di wax leneen loolu mënu ma ci com mënu ma ci commentaire. Balla Gaye est-ce que nañ xaalisam ci combat bi nii. fayaguñu xamaguma dagg nañ ko wala daggaguñ ko ndax joxaguñ ma fayaguma joxaguñ ma reçu bu boobaa bis buñ ko daggee bu ma fayoo ba pare danaa xam dagg nañ ko wala dagguñu ko.